Talène leen ak jàmm seen seen bi di seen njëriñ TV ki di ci mouvement biñ dippé les nationalistes sénégalais yëkëti na ay kàddu dal di koy jëmale liñ importance de décision de justice. on a vu que Ousmane Sonko a deux reprises juge jox na de te juge su joxé ben ordonnance loolu du ay tiaxan ordonnance juge moo sut waxu président de la République te loolu Sénégalais wara xam lu Sabassy fay wax Ziguinchor moo mo sout Macky Sall lu euh, ki nu ci siy ki nek coon nek wax nek Dakar wax mo sout kàddu Macky Sall juge mo sout kàddu président il faut que loolu sénégalais xam ko maintenant nak seen dañ nekk dëgg boo xamante nit ñi dañ jangul état xamuñu état. Hmm. mais kàddu juge mo sout kàddu président. non ba ki di Tahirou Sarr xamalé sénégalais yi que ne kàddu juge manam décision de justice moom mo sout kàddu président de la république. daal di nay wuyal daal di xamle que ne ginnaaw ba décision de justice boobee bàyyeekoo Ziguinchor waaye tamit bàyyeekoo Dakar te si li ni mel ay administration yu mel ni DGE ak caisse des dépôts et consignation bañ a amal li ni mel loole lu mu waroon a jur ci réew mi di Sénégal moom mooy que ne magistrature bi ci saa si fonctionnement bi dafa waroon a daal di dakk ndax ne loole lu mu waroon a jur moom mooy que ne bépp siis kon ci réew mi di Sénégal daa war a wax que ne. bu jëlatee ab décision de justice loolee du ko jëriñ dara ndax am nay décision de justice yu bàyyee ko ci ay tribunal te li ni mel nekkuñ di ko exécuter ci réew mi di Sénégal ne loolee lu mu waroon a sabab moom mooy que ne si yëpp daal di manko dal di amal ab grève boo xam ne ne grève nationale lay doon daal di koy jëmale ci pouvoir exécutif. ndax ne si réewu Sénégal niñ doolelee pouvoir exécutif bu kii président Macky Sall yore noonee tamit lañ doolelee pouvoir judiciaire bu juge yore ne sax si texte yi juge yi ñoom ñoo ëpp doole. pouvoir exécutif ndax ñoño ñom président de la république buy serment pouvoir judiciaire mom dalal ngir amal li ni mel te né nit bu la pouvoir judiciaire bu pouvoir exécutif tëkkoo daa war a moom ndax war équilibrer force pouvoir yépp di